yaakaar damay sóob ci ay sóob la gis ngeen population Médina macha allah à toute la population de la Médina aujourd'hui je suis content aimé et très très ému je dis hein. dama wàcc sama bureau jugee mission jaar fi gis partout yi kese gis ma fi dara là je me dis que alhamdulilah alhamdulilah lii lañ soxla Sénégal mooy ñu sensibiliser mais bu ñu sensibiliser ñuy sensibiliser xam li tax ñu leen sensibiliser di respecter ordre yi respecter suñ bopp parce que lii kat bokk na ci respect suñ bopp monsieur le président ah yaa ko gisal sa bopp de. waa Medina dañoo yaru maa ngi nuyu sama xarit 10 000 problème ndeysaan dama wàcc nii ci réussite bi ñëw fii gis patrouille bi sama yaram daw noonu Medina nag dañoo yaru ne ko ne mais grand Youssou Ndour nag waxal sa waa koñ dañoo yaru de Bamba Fall félicitation lii moom yàlla yàlla na continuer nii la da ngeen jàppale président kay jàppale seen bopp jàppale ñun tamit xam nga xuloo xeex bi arrangé wuñu ñu nag yéen ñoo far nii ngeen def waaw ngeen defee nii mbas mi jóge fii jàmm am ku nekk dellu sa la nga nekkoon jërëjëf waa Medina tey moom xoolal ndeysaan oh quelques ya rares personnes ngay gis ñu tardé eh ñi kan mau jinj bu ko do Ouest wala ñoo tardé fu ñu commissariat ndeysaan mais daa mel ni mën na dina daa mel ni gars yi respecté nañ ko léegi de waaw na la ak rek quelque allah masya allah berapa ya lah xeb ya, lah UCG foo jëm waa ya, UCG wah ndeysaan dama see yem nii rek mais allah yàlla xeb doole lii daal lañ soxla ci population mooy discipline mais ken door len lolou lima soxla moy nak ken door len nest pas ken sagaw len tamit la len tek fi bu am ngeen lu len yobal ñu yobal len ban heure ngeen wacc ngeen gude wacc xana han ah? gude ngeen wacc kinaa ñoo len teewon ngeen di jaay non eh eh, eh eh Malick Thiandou taxawul eh grand malik go grand malik Thiandou maa ngi nii mais grand malik gis nga policier de gis nga ken door du legui de bari chef yi eh, eh gis nga <laughs> gi ni tassale grand Malick Thiandou l'international mm-hmm. borom dimanche. waaw Pate dix neuf janvier deux mille vingt <laughs> couvre-feu benn naa. mais gisee damay dox si couvre bi ba tase ak euh, ak Pate Berger bi ak euh, gars yi waa groupement. mu ngi askan bu ma yàqal léegi. ah léegi moom Berger askan wi ak gendarmerie ci ñëpp ci lañu bokk. waaw fekk naa leen fi vraiment ñuy def seen liggéey. Mhm. Euh, ci wàllu couvre-feu bi. Mhm. ñuy wax askan bi rek ni leen ne police ci ñun la ñu bokk. Mhm. Euh, te itamit euh, teguñu fii seen bopp. Mm-hmm. donc service commandé la ñu nekk. Mm-hmm. li nga xam ne moom la leen yoon sant loolu la ñuy li leen état sant loolu la ñuy doxal. macha allah ñun askan bi ñun ñoo war a collaborer ak la police jàppale leen ci seen. liggéey yombal leen gaa takkoon masque balaa euh, maa nii nag dama takkoon masque dañu ne grand bi parce que corona bi mi fii te du ay caaxaan. Mm-hmm. maintenant la police est là pour veiller. sur la sécurité des personnes et de leur bien man circuler mooy lii. lii dafa bokk ci arrêté bi ñu génne ñi ko yor carte de presse mooy personnel de presse sécurité waa santé li ngi noonu ak waa UCG les policiers ne sont pas des ennemis ce sont nos frères nañu ànd ak ñoom ci liggéey waaye lii gën a neex <laughs> wala ma ñee moom jaajëf